mbokkee xarit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jamono ji àdduna ngeen di teewlu yéen ñuy suivre SeneInfo International ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay jamono ji ñu àddoo di ci Daaru Salaam Daaru Salaam ñoo war a dëkku Seex Seydi Alaaji ñi mag guddi gàmmoo gi ñu taxaw ki nga xamante ne si moom moo di Serigne Mourou Moustapha Ka ñu ngi lay nuyu di leen ziar bu baax a baax waaleykum salaam sëñ Mor man lan nga ñu mën a wax ban lecture nga mën a nga mën a wax ci guddi gi tey incha allah. waaw guddi gi de muy guddi yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ñu koy màggalee fii ci bu tedd bi. Mhm. di barabu arifu bila jalaaluddin bu samaan. Seex Seydi Alaaji Omar Ndaw fi xalifaam bu tedd bi. Seex Muhammadul Basiir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ak mbooleem njabootu Seydi Alaaji Omar bis la boo xam ne. Seydi moo ko sos. ci àddara sosee ko ca Ndaama ganaaw bi mu bàyyeekoo jàng di màggal yonent bi commencé woon ko ci néegam ñax tey gis nga ni mu toll te loolu mu ngi ko sosoon 1929 gannaaw bi mu bàyyeekoo jaamal ñëw fi nga xam ne mooy eh, Ngambi gannaaw gi mu sanc Madina Ndawen continuer di fa wéyal màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais damay wax ne El Hadj Omar Ndao radiyallahu anhu nit la koo xam ne màggal juddu yonent bi wala màggal yonent daf ci yàgg ndax dama naan dafa jiitu mu koy woote ci saahir yi ndax dafa di koo xam ne dafa gën a wane àddina wilaaya waaye nekk koo xam ne dafa di xalifa rasulullah yi kon moom guddi ak bëccëg waxtu wu ne daan màggal yonent bi waaye nag bu bis bi jotaan taalibe yi dañ jege ko fu nekk ci àddina bi ñëw ànd ak moom ñu màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu woote woon ko ca ngaam bi ñëw Madina Ndawet ba ñëw fii nga xam mooy Daaru Salaam tey fi la xalifaam bi ne di Alaaji Basiir Ndaw macha allah mu mel ni yow bokk nga ci responsable yi bokk nga si ñi nga ni ñoom lañ chargé lu jëm ci wàllu organisation bi euh, tey man kan nga ñu mën a wax ne moom moo war a def li nga xamante ni moom di gàmmo gi. waaw tey gàmmo gi incha allahu nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mooy ubbi li nga xam ne mooy jotaay bi commencé sikar di jàng yawaqatul faraydu buñ toogee tuuti rek li nga xam ne mooy jàngkat bu mag bi di Modou Moustapha Mansour nga xam ne jàngkat bu mag la ci kër gi moom itam mooy ñëw commencé moom it di jàng yawaqat waaye Sidi Mamadou Bachir Al Khalifa dana ubbi jotaay bi ganaaw bi moo ndaw ñëwee balaa jàng Sidi Bachir dana ubbi jotaay bi waxtaan ci xam-xam waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénk taalibe yi su ko defee mu jox rakkam nag Seydi Mamadou Habib tabaarakallaahu moom mooy def firi waxtaane jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bu ko defee ci kanam tuuti loolu dana am après Modou Ndaw moo jëlaat kaddu gi ah di jàng ba nga ne mooy fajar jot na ñu jàng alquran tabaarakallaa bu ñu jàngee ba pare sëriñ bi dénk mbooloo ñaanal leen yeewi léegi macha allah kon sëñ Modou Habib sëñ nañu jàpp ne moom mooy def gàmmu gi tey waaw sëñ Mouhamadou Habib mooy ki nga xam ne mooy waxtaanee gàmmu gi di rakk ci xalifa bi di ñu ngi a baax ñu gis sa taxawaay ci liggéeyu kër gi macha allah yal na yàlla fay la yiw jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi doon suivre li nga xamante ni moom mooy seen info international ñu ngi leen di bu baax a baax tabaarakallaa ngeen ànd ak sëñ Mouhamadou Habib ci gàmmo gi waaye tamit ñi nga xamante ni noonu la ko sëriñ Maodo Moustapha limeeg bu ko defee noonu lañ ko fas yéene àndee ba guddi gi jeex ba fajaat incha allahu taala barakallahu fikum wasalaamaaleykum